wa rahmatullahi taala wa ah ñoo ngi nuyu ñi fi teew ñépp di leen ziyaar di leen baalu àq di leen balaax ah di gën a sant yàlla ci teewaay yàlla yàlla xep dolli ah match box bi nag neex na torop ku yi foor na waaye contre yi foor na waaye man de ñaari camp boxe yépp dafa am lu mu leen bëgg a laaj ba xam xam ngeen avion bu ñuy woowee AC130 xam naa doo leen ko bu ñuy wax machine de guerre booboo tax ñuy wax ndax c'est essentiellement un char de combat aérien kon nag est-ce que conscient ngeen ci bombardement bi leen di waaj a dal naxee mbaay naxee mbaay ndax am na missile bu mu leen di waaj a sànni missile bi moo ngi tudd allazi xalaq waaye kooku dinañ ci ñëw xam nga dafa foo xam ni li débat bi di am am am am solo dafa mel ni ñëpp ci lañ daanu mooy dañu xalaat ni problème mu chantier la problème mu entreprise la yàlla ba muy def choix am tànnul employé héritier la tànn héritier la tànn ba muy tànn nit li tax tànn ko ci historique c'est parce que am xam na ni historique bu vierge la intérêt du ko coloré xëy bu fa compétence bi nekkul ça veut dire que keneen du làqatu ci ginnaawam da ko moom ku dul moom moo tax mu sañ def ci moom li mu def ci moom investir ci moom li mu def li mu investir ci moom parce que xam na ni foofu la gën a am chance am retour sur investissement kon nag boo ko xoolee ci entreprise xool ko ci chantier rek da ngay daanu parce que seetu fa ku ko liggéeyal est-ce que yéen a ngi comprendre fi ma jëm mon ngoog gis nga loo tax mbokk bi li il wax sang gis nga yàlla amul potentiel illimité le potentiel réalisé la am yàlla amul potentiel illimité potentiel réalisé la femme dafa mat ba pare li potentiel bi di yaatu yaatu illimité illimité moom bosoon dafa mat ba pare mais comme l'homme a été créé à son image moo tax bu nit dafay illimité waaye du mës a mat xaw ba xaw yéen a ngi yéen a ngi gis sew sew bi moo tax nit fekk moo ngi ci sonn ci di topp potentialité boobu potentiel bi di ko yokk di ko yokk di ko yokk dina gën a jege boromam waaye du mës a àgg parce que ak mënti xew roy du niroog pire roy du niroog pire te loolu nag la ko di doyee parce que ak lu mënti xew looloo gën a mën a jege yàlla ci boppam

boo xoolee boo xool du mujj fenn waaye xale bi nga xam ne mooy concentré ci tay lan la sama performance manqué tey lan laa matalul nan laa fexe ba tey bu ma xëyee ëllëg gën a aay ki ma nekkoon tey kooku xool ko ëllëg mooy raw ñëpp gis na nag problème bi foofu la nit ki fekk mooy xool potentiel bi na ah pourtant mën naa nekk nangam est-ce que dana def yitte ba tax mu doone nangam. mais gis nga ki concentré ci yitte beeg jom ji def ko parce que action loo ci mënti dégg mooy mës imagination li nga imaginer d'accord am solo waaye li nga réaliser nag moo potentiel bi foofu facteur limitant lay doon vulnérabilité bi que moteur d'évolution bi li tax le mu ne misilu allazi xalaq moo ngi ñëw di dal si parce que lan mooy allazi xalaq yalla sac d'accord mais yalla sàkk gi mooy dàq plainte yi nga doon am sànq parce que li nga li nga ko sans sànq mooy employé fi mais beaucoup les ni héritier la mais donner des changements. l'un lan moo tax yàlla sàkk kon boo nekkee ci li neex yàlla nekk ci li ko soxal nekk ci li ko gënal ci sa progression mu sàkkal li lay yombal sa avancement weesuwul misil baa ngi noonu moo tax nag marchand de foie ak ceeb dog keneen a ci yem keneen a ci yem alladi xalaq lu coow li di bëri bëri alladi xalaq moo ngi non ah lan laa fàtte li ñu wax sànq fii bëri na de kon moo ngoog kon si ah, kon question yi ma commencé ne <laughs> euh, As dañuy commencé ci Naziru dafa vulnérabilité yi nan lañ koy ci euh, configuration bi nga xamni Dieu créateur euh, homme créature ci sens verticalité naka la vulnérabilité naka la la vulnérabilité ci mi bind ak jaam bi koy dimension verticalité loolu la laaj ah mat ak matadi bi mat bi matadi mën nañ ko jàppee vulnérabilité mais boo ko jàppee noonu ba mu jeex rek parce que ni ma ko vulnérabilité bi mooy moteur d'évolution mais matu yàlla moo koy permettre mu comprendre la sa matadi bien vrai que faut di nga ci dimension diagonale parce que na xaw ci horizontalité mais bo bëggee dégg vulnérabilité bi dëgg mo ngi dugg ci jam ji nga xamné au lieu mu concentré ci matul kon amne lu mu ci man mais donago ko ce qui fait que problème bi éclipse fay entre yéene gi mu yéene liggéeyal boroomam ak fi mu teg boppam dootul gisati ni àggugul Ma yéeneem en quelque sorte moo koy mujj doy te yéene kese tabaxul dara moo tax vulnérabilité bi foofu nga koy duggee ci foofu nga koy déggee ci cadre vertical bi te ma nit ki du concentré rek ci euh, potentiel bi foofu foofu vulnérabilité bi ci potentiel bi lay dugg mais bu bàyyee xel ni li muy li muy xalaatee potentiel bi noonu la war a concentrer ci vulnérabilité bi vulnérabilité bi daaxu beneen question bi maam as posé mu ni ndax innahu kaana zaluman jahulan bi yàlla wax ci bi mu ne inna aradna al amaanata dénk naa nit proposer naa sama projet mu ne ndax ndax dafay dugg ci cadre potentialité wala dafay dugg ci cadre vulnérabilité <laughs> Est-ce que projet là parce que le problème moi, angle bi ñu koy approché fait changer lu bëri bu ñu ko xasee ba jàpp ni projet la rek dafay matadi te yàlla lu def lu matadi mën na def ci biir progression nit ki lay soog a gis mat matu li yàlla di teg mais moo mooy mooy dellu ci perception bi ñu tudd sens xam nga bu ñu nee perception ne acceptance mbokk bi ne sans acceptance yi jiitu je ne suis pas d'accord lan moo tax bu fekkee xamoo lan ngay accepter est-ce que acceptance ou est-ce que ngëlëmte la moo tax est-ce que perception du tout, est-ce que acceptance du tout, ou est-ce que dénk sa bop yalla jiitu moo ngi non. motax même bu fekkee japp nañ ni projet la ah, maîtriser au projet té nga un borom projet bi rek yaakaar mo moo efficace. Zao dafa lacc ndax vulnérabilité faiblesse la. ah moy comme li Mohammed, indi vulnérabilité ak qui vulnérable ñaar yi beaucoup nit mën na vulnérable te du nekk ci position de vulnérabilité nit mën na nekk ci position de vulnérabilité te de vulnérable mais ba léegi li réellement danger bi nekkul ci vulnérabilité en tant que telle, mais wóolu potentiel gi la wóolu potentiel gi la bien vrai que boo ko observé ba ci biir apesantir ci vulnérabilité bu mu ëpp tamit dina la tardel ce qui fait que en fin de compte c'est une question d'équilibre c'est une question d'équilibre mais faiblesse nag c'est autre chose complètement faiblesse man ci ni ma ko moi là. faiblesse moi, bëgg a gëm ni am nga jom ji am nga yitte gi te façon yéene jëf jom ji wala ma japp na faiblesse xëy sax ci exemple bu réel xamna man mom dañ fay genre camp militaire <laughs> maa ko arabe ndax xam nga ñun moom ay ndongo daal lañ koor lañ gën a sawar a sport démb nag ñu nekkoon ci eh, ñu nekkoon ci nekkoon ci suñu mbokk cheikh dab dab siñu ndeysaan nag maag Mouhamed ñu def ko yëfi saay-saay charge bi ñu ko yëkkatiloo ak ba mu waroon yëkkati daa bokkul waaye ma ne ma gis ni mu koy yëkkati ak jom ma ne naa ko bàyyi ci biir bàyyi ko ci bàyyi ko ci ba quatrième séeréem wala def 8 répétition defal ma 5 mune ma ñetti est ce du moko lepp leb ko leb mune ko fi amul leb de fi du bank mune ko matal sa sa 3 ay dess mune mo no bayil ma leb ko rek muy expliquer di expliquer ma ko cheikh léegi yow dama comprendre manam fim tole li nga def moy da nga ñëw fekk ma sama saal ci sama programme mané la defal nangaw nga ma ciy tegal baat mu bu Bachir mu ne wax nga dëgg waaye ndeysaan bu ma gisee mu jëlaat baar bi yëkkati ko ñett set wecc mbégte gi ma yëg kenn xamul nu mu toll moo tax dama ci dama ko ci tegal baat ma ne ko gis nga nag àdduna mu ne ma ne ko doxee jom lii moo tax mu neex mu ne ko parce que ci biir boo yaakaaree mu neex rek tey nga dee bi gis nga fekk yaa ngi xel li la tàmbaliloo di nga àggale ay gis nga buy àgg nag di neex

ndax Kasumeer bi bu ñuy jàppee ni bu jeexoon ñëppay nangu dañ duñu dégg parce que li tax kaas bi xaaj c'est parce que am na ñoo xam ne il faut ñu nangu c'est impératif ci seen wàll ndax li ñu war a liggéeyal yàlla mais am na ñoo xam ne il faut ñu nangoo bañ ndax ñoom mi loolu lañ yàlla doye alladi xalaq loolu la yàlla sàkk ci ñoom mënuñ ko rëcc parce que bu dul loolu li war a jëriñ yàlla mënuñu ko kon nag nangu nga am na ba pare muy fii di fële moo tax alastu bi rabbikum balaa ji xëy na am na waaye ay xeetu balaa la ay xeetu balaa la am na balaa yoo xam ne dëggu na ci ki ko wax am na balaa yoo xam ne dëgguwul ci ki ko wax mais loolu yëpp dafay def différence entre ñi nga xam ni nangu nañ ak ñi nga xam ni dañoo war a nangu nangu ak ñi nga xam ne dañoo war a nangoo bañ parce que nous seen seigneurs ci lool la parce que bu comme nanguwuluñ yàlla fofu ci boppam lañ dul nek ndax place ba na place ba xat na ba pare bokku ak de ak ay naam ya des ay cas spécial la yooyu ay cas spécial en fin de compte en effet nit ki am jomam parce que nag potentiel bi nekk fi vulnérabilité yi nekk fi ah taxul nga jóg def dara li may seetaan benn waaye di ko expliquer démb mu ne koo gis ak lu mu tayal tayal tayal ak lu mu ñàkk ñàkk yitte ci boppam fu mu mënti toll ci àddunaam personne potentiel am ki mu mën a doon son perso son potentiel réalisé moo koy woo bis bu nekk ni ko diw tee ngaa jóg sa caaxaan yi doy tee ngaa jóg waaw mais ñu woo la taxul nga wuyu moo tax ak lu mën ci xew c'est un mais choix boo gis am conséquence am ndax boo tànnee jom ak yitte choix la boo tànnee toog ak tayal choix la bu ci nekk nag ak la ci fekk. question bu mujj bi mooy kun fayakoon boobu mu wax li dox ci diggante bi bi qudratihi bi iradatihi ak yi ci topp dama joxoon exemple ñoom imam sàmba si yi ñuy bind ci xaatim yeeg yooyu. mu ne naka lay demee kun fayakun bi te ma laa bàyyi nga tontu ko yaa ko yaa ko posé woon góor gi waaw xam nga yooyu yoonu daara la yooyu yoonu daara la waaye li muy nekk nekk yoonu daara am na yeneen yoon yu làqu ci biir ndax kun fayakun ñaari kun yi am na noo koy travaillé doo soxla bind loolu yépp wala déet ah mbir boobu nag daa am borom comme <laughs> daa am borom moom luñ ci ñemee xuus ba mu jeex ah, xëy na sax am na luñ ci jot a sopp waaye ndongo ndongo lay doon sëriñ di sëriñ kon nag ah ñu bàyyi sëriñ bi wàllam ñu nangoo nekk ndongo rek incha allah <laughs> ah kon mat na ah kon sant yàlla sant yàlla ah xamna misil bi dal na waye ñëpp ci bëkk ndax yàlla moom du lore day defar rek yàlla ko yàlla ñu ko yok yàlla yàlla gëna a gëna wéral xol yi ak cër yi ak yépp ci mbaxam ak ci barke ma ñu ñuy yaakaar ah ko ñu ñaanalante ñu defaat fatiha ñetti xuraysh falakh yak nasratul fatiha ñaanalante ba beneen yoon incha allah bismillah leur sagesse, leur dévotion ou leur sainteté mais également leur esprit de partage. Cette jeunesse ne pouvait pas espérer mieux que leur capitaine Serine Ahmed Tidjansi sur le front qu'il dirige. Il n'y a pas meilleur profil que le saint il est l'officier qui commande le navire et la destination est certaine. Le capitaine dirige une unité d'élite rompue à la tâche pendant tout le mois béni du Ramadan. Tivavon, la ville de Seydi Haji Maliksi sera honorée par un programme riche en enseignements. Pape Laïdjouf, le programme bi nga été lañ am Ahmed Tidjansi, capitaine donne piloté comme d'habitude ni nga xamanteni non noonu lañ indee tey thème mu tey bi dellu ci entre potentialité et vulnérabilité les enjeux de la mise à niveau. salam alaykoum wa rahmatoullahi téléspectateurs Mourchid TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ak éveil.